mais balaa nga kay démontrer xam nga xam nga. Euh, ma ma ma ma wan la ma ma xool. Euh, kii yi nga kii euh, nu mu tudd argument yi nga yi nga yi nga teg. xam nga pour le moment ñëwaguma sama argument je suis en train de vous parler des réactions bàyyi ma rek man dinaa ñëw sama argument. vas réaction bi nee naa la benn bi la gravité du report beneen bi mooy nit ñi am nañu confiance ci processus bi ñu bare Sénégalais yi moo tax mu ñu xalaat affaire u report ñenn ñi dañu am crainte ah ne saa waay lii buñ ci duggee xamuñu fu muy dugg. c'est une crainte légitime loolu d'accord naa ko ñeneen ñi xam nga la mooy seen problème dañu yàkkamti ils sont tellement pressés il y a deux camps il y a des gens qui sont tellement pressés d'en finir avec le régime de Macky Sall ak gaam yooyu que am na ñoo xam dañu ma mais mënuñu ko may un jour mel ni man dama leen wax ñu may ko un jour ils sont tellement pressés ils ont tellement souffert ñi nekk ay prisonniers ñi ñi ñi ñu empêché leen pour ñoom le mal est symbolisé par ce régime il faut que mu dégager bul fi wax sax waxu report lañ na wax dañ may woo ne ma grand yow on t'aime bien mais bul wax sax waxu report parce que gars yi dañ ci wut porox ndoll pour toog et tout. am na ñu naan da ngay may Macky Sall porox ndoll. da ngay may le président porox ndoll dinaa si ñëw loolu ci réaction yi la bokk. man maa ngi ci réaction ñi nga xam ne ñii dañu yàkkamti du côté du pouvoir dañoo yàkkamti régler propre contre opposition bi. parce que opposition bi daf mosuñu am opposition bu tàngee nii. sonnal leen sonnal ba fi mu nekk ni dañu yàkkamti élection ñëw ba ñu regroupé wu ba ba ba ba dimi opposition ñoom ñaar dañu yàkkamti mais wolof lu mu wax yàkkamti ak gaawtu lu mu jur rëccu am ci yoon dafa am condition yoo xam boo ci demee élection xam nga wax naa la man gëwma processus électoral bi xam naa lu tax ma wax gëm naa ne situation dëkk bi toll na foo xam ne fii bu ñu yàkkamtee problème day am loolu mooy réaction état d'esprit maintenant am na ñoo xam ne ci positionnement politique la ñu nekk. c'est-à-dire. am na ñoo xam ne ils disent oui bon l'ampleur des risques c'est la mais jarul reporter élection pour ñoom nañu dem élection mu jeex après ku ñu lu ñuy rectifier ñu rectifier ko loolu je peux le comprendre am na ñoo xam loolu la ñu xalaat man xalaatuma ko man bi ma defee analyse situation Sénégal contexte géopolitique bi lii xaar Sénégal ak li mu war a représenter ak le programme moi que j'ai parce que moi je man dama gëm ne le risque est trop élevé bu ñu ko jugulé wul on risque d'entrer dans une spirale négative loolu la xalaat beneen bi mooy inclusivité am na ñoo xam ne affaire inclusivité c'est pas leur problème xam nga wax nga ko sànq am nañu wooyu mais élection 2019 il y avait ni Karim ni Khalifa et pourtant def nañu élection gars yi ils ont reporté on était cinq candidats man mi wax ak yéen j'avais soutenu le Sonko il restait que cinq candidats ñu ne jaru ko c'est parce que ko bokkul que élection yi euh, du jaar yoon il faut ba après nañu jéem a débrouiller mu soutenir beneen candidat kon loolu jarul reporter élection xam man waxuma leen dañu reporter élection parce que Sonko bokkul dama leen ne aujourd'hui exclure force politique principale opposition ci élection te tegoo ko ci yoon bu amul werante c'est un risque tellement élevé parce que xamuloo nit ñi ni ñuy réagir xam nga bi gars yi di réunion <laughs> le le premier le euh, dialogue national la mercredi bi ñu réunion ma gis gars yi taxawaalu ci kii bi ak seen i drap ak yooyu yëpp mën a ñi gisuñu ne dëkk baa ngi tàkk su suba sa gis nga li xew donc képp ko la wax ne mën na préjuger mën na prévoir li nar a xew bu ñu yeewoo ne Ousmane Sonko bokkul képp ko la wax ne mën na prévoir bu ñu yeewoo ne vingt candidats yi du ñu bokk parrainage kenn xamul ce qui va se